yobati point com. eis yobati. maaleykum. naar fi nga nekk dafa lëndëm. fi ma nekk dafa lëndëm. fi nga wéeru dafa lëndëm. voilà. booy naar fii la nga waaw. waaw gis nga de. nekk Sénégal leer dem France Sénégal leer dem France ñuul. dem Sénégal da ngaa mën fi loo nekk naa. mais maa ngi nii nomm rek. sant yàlla lu bees. waaw gis nga ne waaw tey sa anniversaire la. gis nga ne tey lu bees nag. sant wér sant wér. naka waa Sénégal. kooku kooku di wax ci am na lu ma fàttali de. sa combat ak ba nga meree dem jëm naan bàyyi naa bëre bàyyi naa bëre. Lamine commencé di nga encore di indi ay. sa combat ak nga ni bàyyi naa ah. ma ne sa combat ba Bazoka nga ni ne bàyyi naa bëre da nga koo njëkkoon a daan nga ne bàyyi naa bëre. non sama combat Bazoka boobu li ci lox si woon daa bëri. nga ne nga ne jóge ci defar rek ñu lay def lan. waaye gars yi dina xeex xam nga làmb ji moom gars yi ñoom parfois bëgguñu kenn xamul luñ bëgg dañuy bëgg ngay am ndam boo commencé am ndam ñuy siisu quoi kenn xamul lan lañ bëgg. Hmm. xamul lan lañ bëgg kenn xamul lan lañ bëgg. kenn xamul lan lañ bëgg. mais lu bees na naa la. maa raw maa la raw ci loo maa ngi nii rek di la bëggee. adduna bi yëpp lay wër Sénégal yëpp ñu ngi laaj Boy Nar dafa bàyyi bëre wala bàyyi wul bëre ba journal sur lamb tey xëy samp laaj boobu noonu. waaw ah, de non bëggoon naa bàyyi mais comme gasoo ñëwaat na damay ñëwaat. Ah. bëggoon bàyyi ko. dama mais comme que gasoo ñëwaat na damay ñëwaat. ñëwaat daa xew. retour dafa xew de. retour dafa xew le retour de naar. 2021 gis ndax naar Touré sax dafa bëgg signé retour. ah. naar Touré sax dafa bëgg signé retour. Ah, ah, nañ ci droit Gaston dafa dafa xam làmb daf ko maîtriser man sama premier combat Gaston Gaston moo ko tëgg je me rappelle c'était en 2006 bàyyi ma ñoon Mbaye Diouf maa ngi ci bëri ak Laman Sall bu Bawol je me rappelle. mooy suma premier combat. ay kii moo ko doon rapporté sama màngaan sama màngaan moo ko doon rapporté. Mm. Gaston Gaston dafa am. waaw moom ci combat boobu laa njëkk a ak Laman Saaf bu Bawol. Gaston Gaston daa mën làmb. ok sama père la nag sama carrière daf cee daf cee participer quoi. retour ci moom. waaw retour xam nga lu tax mu baax tey làmb ji jeunes yi dafa bëri jeunes yu bëri ñu ngi bàyyi làmb promoteurs yu bëri ñu ngi bàyyi làmb tu vois te booy xool tey moom mooy la donkin nit ku nekk tey dafa am ñoo xam ni tey ñoo fay jiitu. toujours mhm. jiitu ci mbir daf daf ci ëpp xam-xam. li naan mag du yàqu mais yàgg ak yàlla la. donc tey Gaston bu demee ba bëgg ñëwaat ci làmb loolu intérêt làmb la ak fi làmb toll tey. ak filamb làmb toll bëri coow Alioune saar gars yi bëgg mu dem ñi naan du dem ñi naan doyal nañ ci moom muy génn di tontu naan heure bu ko neex lay dem xam nga moom moom daa foog ne benn roi la moom benn moom affaire de roi jàppee suñu suñu làmb ji. donc mm-hmm. Gaston ñëwaat def ciy baax quoi. mais état tamit foo ñu dooleel promoteur yi quoi parce que promoteur yi ay jàmbaar lañu ah. kii ay jàmbaar parfois gis nga parfois bu fekkee xam nga làmb. Hmm. da xam ni parfois dañuy sagu parfois dañuy perte. Hmm. Euh, làmb dafa frais gis nga làmb ñëw jox mbër ab dafa yomb mais gis nga frais d'organisation moo gën a garaaw. da ngay hmm. xool te organiser seen benn programme bu ndaw rek. paati wala say copain ku nekk teg vingt mille dix mille mm. mais da ngay gis ni bu nga jënd ay affaire da ngay yaakaar di doy na mais gis nga boo deful naan yow yaa ciy gën a sonn yow mi ko organisé sa mm. xaalis yëpp daf ciy dem donc la plupart li ñu doon wax vrai lamb mm. état foo mu jàpp kon ni ci Ablaye Wade doon def Ablaye Wade am na benn affaire bu baax bi mu bëri xamuñu dimbali promoteurs yi promoteurs yi nag xam na ñoom ay nant lañ daawuñu ko wax daal mooy yoole lañ waaw xam nga ndakaaru nag maa ko moom nag Lamine nag ndakaaru maa xam li feeñ suuf maa xam li feeñ ci kaw. promoteur yi ñu wax promoteur yi daaw ñu wax euh, Abdoulaye Wade leen doon quoi. waaw. Abdoulaye dafa am lu ñuy wooyee benn xaalis buy nekk trésor. waaw. dañ ci doon jàppale gars yi sama benn copain du ma tudd turam moom moo nekkoon foof ku ku ñu xam la. maire la sax maire la foofu la nekkoon di job mais da ngay gis ni gars yi dañ fa doon gagné ay valeur ay cent millions cinquante million ba vingt millions da leen ko doon dimbale. léegi fi làmb toll nii tey en même temps drapeau yi da doon drapeau yi daf ci doon jouer drapeau dangam drapeau diw. drapeau diw. très bien tu vois nga. nga bi ministère yi dañ ciy jàpp lo rek dafa doon dundal lamb mm. boobu temps boo nekkee mbër. lu mu dee dee dee di nga am ministre bu la may cinq cent t-shirt ministre bu la may un million. ministre di leen may cinq cent mille léegi su ko defee bi ñëw nii dafa xaw a banku dafa xaw a tëju yooyu daf ciy joué foo mu xool ñi ŋàmp làmb ñi su ma waxee ñi ŋàmp làmb waxuma CNG CNG amulul làmb benn njëriñ moom ennemi dee yàlla jàppee mbëri nawloowu leen respecté wu leen waxuma CNG promoteur yi jël seen alal ak seen doole ak seen temps ñu mel ni garçon daf leen war a recevoir Macky Sall dooleel leen wut ci ñu mel noonu Aziz maa ngi dégg bàyyi na xaw ma bàyyi na wala bàyyiwul loolu mooy dundal làmb hmm. Gaston tey bu ñëwaatee lu mu bëgg bëgg bëgg bu buñ ko doolelul day persaat ma wax la ko tey lamb daa métti ah. ah làmb dafa métti ah. ok am na solo ni ma la ko ci ñetti point laa bëgg waxtaan ak yow. waaw. bëgg naa ñu wax ci. écurie uh-huh. Fass bëgg uh-huh. naa ñu wax ci. ne la ko dugal ne la ko ji xaw ma sax ba xam nga fa am déet. ak sa ak Balla Gaye numéro 2 ak waaw man su ma su ma. lan moo li dama doon foo dama doon ànd ay dama doon ànd ak Manga 2. Hmm. ay doomu Manga 2 dem ba ci yàgg Manga 2 bàyyi bëre doomam jàngal ma bëri bu ñuy woowee Paul. ma dugal ci làmb Manga moo ja Manga laa doon Manga moo nekkoon suma père ma ànd ay doomam mu dem ba bàyyi bëre doomam yi tukki voyage yi. man moo moo moment bi muy bëre ma nekk booy boobu temps bugguma woon bëre parce que suma yaay buggul woon ma bëre boobu maa ngi nekk jeune nekk xale am doole mën a bëre naqari bëre bëri ay mbapat doon ànd ak doom mi di dem mbapat di bëri ay mbapatu manga de ay mbapatu usa ko doon boobu temps dañ ko doon foowee en tant que jeune mhm. ba mu demee maman mbapat jeex Mm-hmm. après ération ñoom Gris Bordeaux moo ñëw mais moment boobu man fekk na ma maa jeexal làmbam man ma bàyyi affaire de bëri nekk samay activité boobu maa yi voyage ma nekk ci leneen ok voilà après quelque temps nag ku ñu ba baaboo laa ci mën a lim ak ousa daaw dañ ma fekk géej boobu maa ngi nekk ci benn école arabe boobu mm-hmm. maa nga dafa Tyson ba daanee Tyson loolu metti woon ma trop ma bàyyi làmb mm-hmm. baabooy i contact foofu mooy wax kañ dem écurie xaal pulaar kaay ma def la ma bañ. Mhm. Ousa ak Maxari ñoo ci gën a sonn. ñoom ñoo ñëw jàpp Ousa ak Maxari si yàlla Maxari. ñaar dañ ci sonn trop trop trop trop trop. bon après yàlla def ñu yóbbu ma faas ñoom ñaar ñoo ma yóbbu faas. Mhm. mais Mbapat doon nga ko def Mbapat. booy naan est-ce ba ma dama dama dama say xel ñoon dama gaawoon. fu tànk nekk ma jël ko. da nga doon song sew rucc ba pare gaaw. xanaa boobu amoo biir boobu amoo biir. non non boobu ah ay ñoom Papa Sow ñoom Dolph ay ñoom Paate rakku Lac de Guiers ñun ñoo bëri ndoo nga daan mbapat ci mbiru daan naa papa. Mm-hmm. daan naa dolf. Mm-hmm. Euh, paate moom moo ma doon daan paate moom man xaw ma lan la munul daan Paul munul daan Paul te man pol munumaa daan te moom fu ma fekk daan xaw ma ba xeetu bëre la yor. kan paate rakk rakku la te mu defoon accident ak ñoom liiru jaañ. kan mooy Paul Paul. ak Rhone ak Rhone même même Rhone Rhone bëre ci combat Balla gay la de Guiers combat jooni jooni mu daan ma ndar loon. ok ok. boobu temps ñoom Simel laa àndaloon. ok léegi bi nga dem écurie Fass bëri sa premier combat daan. da nga doon da ko doon def. da nga doon neexal wala da ko doon def pour nekk ci champion bu mag bi ñuy dégg. non man làmb musuma ko bëgg làmb ay affaire de champion musuma intéressé xam nga kañ laa bëgg a nekk champion dëgg-dëgg. Hmm. bu ma bëri Simel laa xam ni daal. Ousa waxoon na ma yaa mën ay ñoom bombardier parce que Ousa loolu la mës a gëmloo sama bopp. soo waxoon rek mu ne ma ñuy yàlla Ousa moom loolu la gëmoon moo ma xëri. mais ba ma ciy dugg yëpp ay folo woon ay folo kan nga dem ba commencé gëm làmb kan nga dem ba commencé combat entraîné contact. waaw ba ma waaw ba ma commencé gëm lamb sama premier combat dama cee bëri ak. Euh, kii nuñ koy waxee Lamane Sall bu bawol si laa ko Mm-hmm. après sama deuxième combat ñu jox ma Dame Niang ma daan ko. Mm-hmm. stade Iba Mar ñaar yëpp Iba Mar la. Mm-hmm. troisième combat mu nekkaat Iba Mar nekk Cheikh Fall Maladio ma daan ko. sama quatrième combat mu nekkaat Cheikh kan doomu Papa kan ñu match nil. sama cinquième combat maa nga ñëw ne ma da ngay moom grand combat ma ne ko du ma bëreeg moom mu ne ma boo bëreewul ak moom boo demee ba grand combat da lay topp ma ne ko man bugguma sax bëreeg grand combat petit combat moom gën boobu temps petit combat gars yi xaalis weex tal lañ may fay ay sept cent mille ay un million di déclarer cent mille Gaston mm. yàq ma fii bay yàq ma fii Aziz Ndiaye yàq ma ma nekkoon koo xam ni promoteur yëpp bëggoon di ma tëgg dama ñëw rek def buzz parce que man soo premier combat moo def buzz bëréewu ma mm. ay ñaari combat ñetti combat pour def buzz mm. après maa moom daf may fay million ma bañ mu dem jaare par paaba xam na ni Paba sama papa mu jël xaalis jox Paaba xam ne man lu Paaba wax dama koy def parce que Paaba moo ma yar suma papa la hmm. Paaba ne da koy bëral Paaba supporteru Manga la. Hmm, supporteru Manga numéro un la dafa bëgg Manga ba ba Mor Ngeer daanee Manga daa wax patron mu tëgg revanche. ma après ma jël grand combat Cheikh Kane daan naa ko grand combat mais ba ba ma koy daan grand combat daf ma njabar. daf ma su may bëreeg moom daf may jabar ba du ma dama jékki-jékki rek gis sam bopp ci kawam ba moom ba may cabaxal. na doon cabaxal daal. kon kay ma doon cabaxal ma daan ci kawam mais Cheikh Kane moom su ma doon bëreeg moom xaw ma daaw na tudd suma yaay tudd suma pap tudd samay waa kër ku ma xamoon la xaw ma fu mu doon jaar mais boobu temps dama ko ëpp doole ñetti yoon. xam nga mbër am na nu mu la doole même boo ko jekkoo ci gàllaaj sax pour nga daan ko. boo te man te yooyu du ma ko def affaire de gàllaaj yooyu gëw ma ko Lamine daaw ma ko def. Mm-hmm. boo seex kan nag gars yi li commencé xaw a bëri nag commencé ma bàyyi xel. Mm-hmm. après maa nga ne foo ma bëriwaat ma ak Sibel. Mm-hmm. ma ne ko mu indi coow lu bëri ñi ne waroo moom daa bëri gàllaaj Sibel bëri naag ak Tafa Gueye match nul naa naag ay Eumeu Sène match nul du yoon yaa ngi soog dugg ci làmb. waaw léegi ñëwal ci palmarès bi ñaata combat la. mais maa limal kon yow li ma lay kon ba may lim palmarès yëpp kon yow dégguloo ma woon yow Lamine foo ne woon. non dafa lëndëmoon quoi moo tax da boo loo yow dafa may nelaw loo du ma jàpp palmarès bi. journal sunu non sunu bind na ko mais mën naa am ngeen am ci waroo yéen ñaar. waaw mais fu ñu yemoon maa fu ñu yemoon. yaa ngi woon ci Cheikh Kane. waaw ba ma jógee ci Cheikh Kane après euh, dañ ma jox kii. Euh, paa bi dafa dem jël euh, jëlaat Simel Faye ba mu ñemee grand combat bi mu neex. Mm-hmm. père dafa demaat ma avance Simel Faye. Mm-hmm. xoolal xoolal Cheikh bu waale ne du man kilifaam laa réew na trop. Simel nga dóoroon mu daanu. waaw mu après si laa bëreeg Simel si laa bëreeg Simel stadium. Mm-hmm. mais ba ma Simel bu bombardier laa bëggoon après nag. boobu maa ngi commencé yëg maa ngi commencé doole bu doy waar. boobu maa ngi nekk et puis euh, salle Condos bi ñuy wax euh, Demba Diop. Demba Diop waaw. waaw damay vider machine yi ndaw yi couché damay échauffe échauffé deux cent kilos. squat may dem ba trois cent cinquante kilos. borom ba borom salle bi ne ma naar yaa ngi yàq sama salle. Aliou Ndiaye Aliou Ndiaye Aliou Ndiaye ne ma kii Aliou la. boobu temps ay Lac de Guiers ay Lac de Guiers ñoo fay ay kii ay Lac Rose ñoo fay entraîné. ay euh, kii du Modou Awa ay mm. Tafa. Junior papa papa Sow mbëri waaw ak ñan ak yan mbër encore waaw Modou Awa encore waaye am na mbëri yu bëri doon entré salle boobu. xam naa salle waaw. après après man ma Bombardier laa bëgg tu mu dëgg woon ci man non non balaa ñu egg ci Bombardier taxawal des na. sa combat ak Bazooka dama bëgg ñu ñëw ci. oh Bazooka yegg seeguñu boo ma daanee semaine am na ñu ma daalaat. waaye doo ma def naan. ah continuer balaa nga ñëw Bombardier Petit Mbaye Petit Mbaye daf ma woo ci guddi ma dama bëgg sa combat. ma ne ko ku ñëw baax ñi ma gis fii ñëpp maa leen mën maa yen gën a suur maa leen ëpp doole maa leen gën a dal xel maa leen gën a xew koo ma jox ma daan ko. waaw ah. mu ne Yékini bu ko neexee sax moom Tyson buñ paree ma bëri ak ñoom. Ah. après mu ne ma xaw ma suumle ma ne ko kuy suumle. a mooy man boobu temps man boobu temps xaw ma mbër yi may bëreel si xam ne man daa ma xam mbër yi may bëreel. après la commencé xam mbëri may bërin di dem ba ci guddi si mu woo ma ne ma suum la nee na daa feebar dañ ko wax ni soo bëreeg yow da nga koy gaañ. mu ne ma nag xam nga Aliou Bakken ma ne kuy Aliou Bakken mu ne ma Jean Pierre Suger ma ne ko waa ku ñëw baax na si laa jël Jean Pierre Suger Jean Pierre Suger nag ah foofu moom dañ fay taxaw tuuti ndaxte kooku moom damay wax dëgg rek te yàlla tax 49 la doon sol. di mesure deux mètres. loxo bi ñaw bu ma doonee may gis ñetti amitié yi. barke alxuraanul karim gisoon na trop kooku moom gi ba léegi gisuma góor gu amee doole noonu. Mhm. man moom wax dëgg yàlla moom daan ñu daan maag du ma tere wax dëgg. Mhm. waa ji bu ma dóoree ay set amitié laay gis barki alxuraan lamin xaadim Ndiaye ne ci ginnaaw di ma saaga naan ma buñ la jàppee nañ la def nangam xaadim Ndiaye numéro un de. Mhm. dem ba ci biir ma xam ni kii suma ma ko jaayee sama bakken daf may gaañ. ma jé ma di ma dindi jikkoy mbër bi génnee jikoy booy Medina bi kor wàcc sama gauche dóor ba bakket bi fëq hmm. arbit bi yóbbu ko mu ñëw sañe ñu def ko coton mu dóoraat ko ba ban bakkan bi fët ñu arrêté combat bi dox ma victoire ci guddi si hmm. petit mbay yóbbu ma ma un million ne ma boo xëyee damal téléphone du monde nga jël téléphone bu la neex Youssou Ndour xëy woo ma téléphone ne ma damaa bëgg nga tourné clip al suma dëy ma ne ko ba moom fayul million du ma ko tourné hmm. garçon woo ma ne ma Youssou Ndour mu ngi lay woo nee na la bëgg nga def clip bi ma ne ko moom fayul ma ko def ma xew nag trop mu tombé 2007 ba suul mbër yëpp benn mbër xewatul gis recevoir yaay jàmme ji ma jël avion di ma teral ma nekk stage nag xew fay mbër yëpp Balla Gaye nekk suma booy bëgg ma Modou Lo bëgg ma mbër yi ku ne bëgg ma ma def may ma tudd rek non bul ma def ma lim man siisu bugguma koy siisu dama lay fi ma mbër bu nekk dafa am lu lay taal dama lay ma tàqee ba ma gaañee Jean Pierre Sugar ma mbër yi commencé bàyyi xel. waaw ma ne dama ne mbër bu nekk dafa am combat bu koy taal dafa am combat yoo xam ni fële mbër yi commencé bàyyi xel. léegi nag ba ma jógee ci Jean Pierre nag foofu la coow li commencé bari nag si la xew benn mbër xewatul may lëmb biir Dakar def lu ma neex jël ay avion di dem ay ci Yaya Jammeh di dem ay hmm. Mauritanie. di ma xëccoo Sénégal di ma xëccoo Gambie ma xëccoo ma fay mbër yëpp amul Balla Gaye amul Modou Lo kenn xewul. man dong maax. taa boobu mën ma am ñetti taxi yor ay T-Max yor xew yor ñetti kont su ma xëyee damay bind liste fi ma war a dem ma xew ay Pape Diop président ma wër ñëpp di ma wër ma fay mbër yëpp. ñetti tak ñetti taxi barki alxuraan ak benn jabar sëñ Modou woo ma ci sëñ Modou woo sëñ Modou ñaa woo ci guddi si. Mhm. ne ma xaw ma ne ma lay jox Kobala ma jox ko kuy Kobala. Kobala mooy ba ngay tekk bombardier moo ne woon da ngay tëkk bombardier yow ma yow daa bëri ak yow boobu ko peer bëriwuma kooku jox ma ponkal yi ñii dañ may tardal dong ñii amuñu doole suuruñu. mu ne waaw ban jël ko rek mon fils boo ko jëlee boo paree ma neexal la mu ne ma drapeau Pape Diop la waaw ñu def signature bi Pape Diop woo ma ne ma da nga maa neex jël ay millions yu bëri teg sama loxo muy Assane juuf sifflé muy daw naa may tex mu indi wax après ma ne Xaadim Ndiaye yow yi ngay nekk fii di indiwaate doo jël avance bi yow comme que dégg naa da ngaa mën a xeex yow yaay le nga ne fi di indiwaate indil sa bopp. Hmm? man dama lay rey. Kopara benn wuñu sax deux secondes. famille la rek mu jébbulu <laughs> ma jóge foofu sëñ Modou woowaat ma ne ma ne ma léegi fiis nu ñuy def ma jox la Elton ma ne ko ma sama boy la. non non non Elton boobu nekkul sa boy. yaa am na combat yoo tëb am na combat yoo sa. Elton avant ngay bëre mu am na yeneen combat yoo yoo tëb booy naar bàyyi sa yi ngay def. man yàgg naa si yàgg naa si yëpp Lamine daf ma ndànk man ma jàppandoo yëpp yow yaa may dimbali man dama lay wax ñi ma bëleel rek. amuma lenn ma. yëpp laa lay wax mais waaw. waaw ba boo bëree Kobra ma bëree kàddu gi nga doon Bazoka yow li nga wax si yow. avant avant Bazoka nga ak kii bëri nga ak Auguste. non sama premier défaite la gis nga yaa ngi jaawale. Auguste mooy sama premier défaite. waaw ba ma bëree ba ma xoolee ba ma bëree Kobra dama bëree ak euh, kii. nu mu tudd Bazoka si laa bëree Bazoka non ba Bazoka mooy jaay non Bazoka ba ma Auguste daane ba pare wax nga dëgg wax nga dëgg. parce que ah, ba may ah, bëreeg moom boobu maa ngi jéem sama méttitu defet wax nga dëgg. bo hmm. boobu. voilà ah, boobu méttitu defet bi laa méttitu defet bi laa jeenjaale wax nga dëgg. Hmm. après Luc Nicolas ma Luc Nicolas ne ko man bombardier laa bëgg a bëral. Hmm. léegi soo bëggee daan bombardier dangay ngay bàyyi ma jox la bombardier deux ba pare. mu ne ma mais mu ne ma mais da ngay bëri ci komba ma ne ko man dama sonn kañ la date bi déwén saison bi tëj da ba pare. mun ne ma non da bëri ci jour combat xaw ma tel la woon du Lac de Guiers ak Zos. Lac la waaw. ne ko man mënu ma jël combat une semaine. giri da doon préparé bombardier man maa nekk sparring partner te man damaa tooy loolu mënul nekk. Mm-hmm. après Papa usa ne ma da ngay bëri. daf la daan. Mm-hmm. te supporter yëpp nee nañ bàyyi bëri parce que man ba ma Auguste daanee tellement tàmmu ma defet victoire laa tàmm damaa ne damay bàyyi bëri. <laughs> xam nga nag man caat laa rek foo ko xam nga nag man caat laa Lamine nag. foo ko def seen presse nag maa nekkoon seen presse. maa nekkoon seen caat. man nag maa ma bëri quatre mille premier combat. invité écurie Fass leen ñaari xar. defal leen eh. teraanga. Moussa ñu dégg ma Moussa ñu ngi ne lii ba làmb sosoo ba léegi mbërëm koy soo ko def sama premier combat. ñaari xar laa ah. ma continué ba léegi yaa ngi woon ci ci ci kii bi de ci bazoka bi. waaw léegi après ba ma ñëwee ci bazoka nag bazoka coow li dafa métti woon parce que bazoka ñëpp dañ ne woon moo te jamono mm. boobu xam naa li ma yor contact ku dul bazoka sax maa la mën. Mm. mais méttiitu defet bi maa ko maa ngi ko fanaanoo. ma ne mm. kii du ma fi nekk sax xeex ak moom damay ñëw gëmloo ko dama ko ragal fu ma ko jàpp coow li jeex. ma gis ko mu tal mu ma gis ke mu lal tànk bi. Mm-hmm. ma gis ko ma gis ka ma ma gis que mu lal tànk bi ma jël tànk bi dëj ko. bëre da teg taat la. ak teg ginnaaw. waaw arbitre ne ma da ngay bëriwaat ma ne ko kii naka laay jëlee tànkam mu teg taat man ma soog a yegg si man mi jëf action kay nu may bëriwaat nu du ma bëriwaat rek ma siisu. Hmm. ma siisu yu xam naa bëgg a tekki ngemb bi bàyyi leen bi jëm sama yoon gars hmm. jàpp. buñ ci jàppul woon hmm. buñ ci ma ne bu ci jàpp lay bàyyi ngemb bi wala woon bàyyi ngemb bi ok waaw après arbitre arbitre woote waat gars yi wax wax ba ma d'accord ma wàcc mu ñëw jël sama wet gauche bi ma ngolli ko ma ngolli ko gars yi coow li bëri ah première première action bi dafa mel ne moo gënoon a leer sax de deuxième action bi mais bi gën a bi daa bondé dama bond ci kawam jóg deuxième action bay gën a leer mais deuxième action bi dafa rafet. boobu taa axlu làmb xam. xamuñu woon ni sax. Serigne Ndiour nee ah? na non Bac Serigne Ndiour nee na jour combat Bac Serazos la gi nga bëre. ne ko merci ne ko merci ne ko amin waay ne ko merci beaucoup. Mm-hmm. kon ne la wuyu kii nee na Bac Serazos la kii wuyu Serigne Ndiour nee na Bac Serazos woon. Bac Seras Jos kàddu gi nga bëreel kàddu gi. ah <laughs> waaw wax nga dëgg da Lamine waaw wax nga dëgg. Hmm. mais kàddu gi kañ la kàddu gi ban moment laa bëri moom ba ma bëri ba sa kaw ba pare. waaw. parce que am na am na benn jour may bëre kàddu gi di bëre ak euh, tafaatin xaw ma xaw ma basoka di bëre tafaatin. waaw ba ma bëre waaw gis premier bi dama ko dëj. Hmm, hmm. léegi deuxième bi xamul tax mu am coow. Mhm. làmb dama doon ñëw di xeex di xeex di xeex di xeex di xeex. ñoom xamuñu. wuyu Moussa Dioum Moussa Dioum nee mu ngi lay géral. ah Moussa sama xarit la deex champion bu mag ak a baax kii. Mhm. oh Moussa ne ko ne ko Moussa Moussa dafa baax kii yorul jikkoy mbër am na ma mbër yoo xam ne ñàkk a yor mbër moo tax cat dugg leen mhm. Moussa dafa baax ab yar respecté ma jox ma cër. Moussa xanaa xamoo sama combat Cobra Modou Lo bëri na ci ndeysaan pour wan la làmb dafa dañoo mën a yàq der jaxase ay nit ba ma daanee mu ngi may kot ne ma grand sama grand yàlla na la yàlla may ndam. barki mm. alxuraan làmb xanaa moo ñun mbëri amuñu benn problème mais mm. nit ñi ñoo doy waar c'est-à-dire dañuy dugg ci vie privée jàmbur yaakaar nit ñi à part làmb ils ont pas de vie. lamb lamb lamb bu jeexee jeex na les gens ils ont des activités. Moussa Dioum dañuy sekk jàmm dañuy doxlante Balla Gaye dañuy sekk jàmm dañuy doxlante mais lamb ji loolu moo ko gën a yàq nit ñi ils se dans les vies des gens or nit ñi à part lamb ils ont d'autres vies à fi rek di lamb guddi. Mm-hmm. léegi ma daan Bazoka. Mm-hmm. après ma daan Bazoka kan mais man ñi ma bëreel dafa bëri xam nga problème bi mooy man yàgguma ci làmb Lamine mais après moment boobu noonu dama doon as man dama doon jot avance si guddi si ba jotaat avance. man nekkuma ay deux mois. bébé Dieng ça va comment tu vas ça va comment tu vas là je suis en direct après je viens tout à l'heure je te dis bonjour d'accord ok je t'aime beaucoup c'est gentil quoi. après ba ma bëree Bazoka nag coow li bëri nag. vraiment. ba maa boobu nag moo def buzz nag ba ma bëree ilaha illallah mm-hmm. télé yi coow li xaalis bi Moussa Dioum ne ko moom moom a gën a baax moom ne ko moom oh, ne ko bu mu yàq sama émission quoi moom moo ma gën a baax. da ngaa a jooy de. ko bu mu yàq sama émission moom moo ma gën a baax. billahi Moussa Moussa Moussa yorul sax jikkoy mbër parce que xoolal mbër yi dama leen xam ñoom ñëpp ku ci nekk mën naa la wax jikkoom xam nga man chance bi ma am mooy damaa fréquenté màng booy màggee sama kanam parcelle ma màggee ci kanamu. Ouza dem ba ci biir ñëpp yaakaar du ma bëri ma jékki-jékki rek sama destin làmb bokk ci ma dugg ci làmb yàgguma ci làmb mu indi lu bëri. mais nag Lamine wuy ma Lamine nag dama def bruit de tur bu ne woowee nañ ma indi naa fi rafal. indi naa fi xul bi di jël. indi dina ma la laal bu lu gisee lu lay def. indi naa fi charge creuse on constate même pas indi naa fi le mm. indi naa fi mm. euh, le chouchou. lu ne woowee dañ ma ko. le chouchou. Lamine Lamine incha allah naa ko lire yow ma laaj la benn affaire. waaw. sa diggante ak Pagala. dama na. balaa nga yegg Pagala doo lim sama palmarès ba mu jeex ba ñu yegg ci Pagala lan ngay yàqamti loolu doo lim sama palmarès ba ñu pare Pagala kay après ah. la. waaw ñu continué PASTEF bi. waaw continué loolu ko. waaw après ma jege foofu ma jege sëñ Modou. ma jege foofu. waaw léegi ne bëgg ma bëre ak euh, kii nu mu tudd. ak kii Xaadim Ndiaye numéro 2. Xaadim Ndiaye numéro 2 nekk fii di bañak di dawak di weddi. mu mm. jékkiwaat jékki invité ñu almadi. Mm. ne bàyyi ma ñoon ne bëreeg man bàyyi ma ne moom suñ ko fay lu ko jar du bëreeg man. Mm-hmm. foog baa jël pakala Hmm. ba Forza jëlee pakala après si la Forza gaañu mais man moment boobu xaaruma moment boobu ci hmm. tabaski début ba tabaski desee une semaine dama doon jaay xar sëñ Modou ñëw jox ma dix millions jox ma avance su avance su eh, avance Elton ma jël bàyyi maam Cheikh dix millions lañ la jox avance Elton bàyyi maam Cheikh loora man bu ndaw dag may fonto wala man dama doon déclarer lu ma ne ah man yow man ñu may may ay dix millions man dañ ma yàqoon lamb ji man maa nekkoon star bi amul woon beneen star bu dul man. ay gis nga ñoom Papa wu dama leen yóbbu woon piscine olympique point E ñu fay entraîné duñ fay man la woon man maa teewoon Dakar lool day am loolu la ñuy woowee bayre gis nga li dal wulli nii loolu day am ci làmb mbër day jékki-jékki am benn bayre boo xam ne loolu suñ borom moo koy def ci nit. Mhm. ma xew nag. léegi boo ba ak Elton. Elton dama ko dama ko ruus xaw ma lan la depuis ni Balla Gaye nekk xaw ma Balla Gaye depuis ba muy nekk euh, Fass dafa nekk suma booy daf mu bëgg rek te yàlla tax moo moo Modou Lo ni ñu meloon ci man. mais Balla. non dinaa ñëw sa diggante ak Balla. non dama lay doon continuer Balla. léegi après Elton ñu match nul. non moom lañ jox victoire. waaye non non waaye man loolu match man ku ma daanul match nul laa ko tuddee may ma jàpp waaw d' accord ok moom lañ jox victoire d' accord. léegi ma jógee ci Elton. avance su kii paka la feebar di taxawaalu a ah, xam nga man du ma bàyyi bu sedd ma lig jox ma ko lig Nicolas jox ma ko léegi ba ma ko lig Nicolas mhm. joxe boobu temps mhm. te max deux mille mooy soog a génn étoile maa ngi lay bëgg envoyé ma message normal super étoile léegi boobu te maks deux mille huit génn ma jënd si bu bees tax mhm. boobu taa tafaatin mi ngi daan ay cek daan ay Abdou Diouf di entraîner immeuble Djily Mbaye ba dégg immeuble Djily Mbaye salle bi dafa baax xam nga man dama doon nax mbëri parfois mbëri foo ne du ma entraîner fekk man damay yeewu dem dune dem box dem salle buñ simee ko buñ jàppantee nga xam ni kii day entraîner. Mm-hmm. léegi ba ma jëlee avance bi Pakala fekk boobu ca avance bi bëri na ñu naan ay tampon da koo jël dee Matar Gueye jël ko xaw ma ni jaayam dee. Forza mm-hmm. jël ko jëndam jéem ba may yëg pont foire bi laa laa jël ci po bi. soo ko ci pont bi laa jël dal ci benn oto. ay <laughs> la xëy na laa. après man man man dama dëgër fit dama jóg taal suma moto dem sama yoon mais ba ma demee ba ci buntu saal bi ma gis sama ñaari tànk yi di new yi. après ma mm-hmm. xam ne gaañu naa. woo sama benn taximaan ni ko ñëwal jël si ma. Mm-hmm. mu jël si ma ñu dem. CTO si laa def rajo nekk sama tànk yëpp dafa damm. Hmm? moment bi ma damee moment bi ma damee dafa gul sax un mois ma gis ni Nicolas di publicité le vingt et un janvier après man ma woo kii ma woo euh, Mbaye Diagne ne ko waa mais kii naka lay publier combat boo xam ni man dama damm. Hmm. mais xam nga la mi nag man dama bëgg xaalis. <laughs> ci guddi si ma taal moto bi dem toj tabax <laughs> dafaa ngay dama yow da ñuy yab da bëgg a bëri ak sa sa tànk bi ma la ko noonu foo ma bëree dafa dëgg sa taay ah, xam nga am nga làmb da ngay génnee rek génne bi day bëri. Mm-hmm. léegi dafaa ah. ngay nekk fa di nekk xamu ni man jël naa avance bi bu yàgg. Mm-hmm. ma dem toj tabax bi boobu temps am na benn salle bu nekk fii mooy saalu HLM Grand Médine bi di nekk fii ci HLM Grand Médine bi. Mm-hmm. comme que booy amet man maa ko yàq munu dem fas ak sama tànk bi. ma ne Ameth fii lay entraîné ma dem entraîné fa jéngu dem comme maa paaka la ba may bàkku ba may bàkku sax dama dama doon waaj a daal <laughs> hmm. mais dafa mën a camoufler ma bëre def sama tànk lemu mu dóor mooma daanu. moo tax pare woo physiquement sa tànk di metti nga ñëw di ni da ngay moom. loolu moo lay wan ni làmb doxul loolu moo lay wan ni làmb ñu ñooy defal lépp suñu bopp xam nga tey làmb. déjà bu amoon njëriñ rek on est assuré ñu ñu ñu ñu ñu nekkal ñu ñuy bàyyi xel moment bi nga feebaree rek waroon nga am en charge boo xam ne tey ci subventionné am na ci comme làmb muy promoteur bi muy mbër bi yow yaay demal sa bopp surtout tous les côtés yaay demal sa bopp sa vie yaay wut say nit yu lay dimbali yaay wut say business ñoom nekkawuñ fi dara loolu signé contrat ñëw ñëw seen big jour bi ku baaxu dix minutes ñu dagg ku ku tardé ëppal cinq minutes ñu dagg ku bëre dal ci ginnaaw saako ñu dagg la c'est-à-dire amuñu benn lenn luñ avance loo làmb loo xam ne tey mbër bi dina ci bénéficier wu ñii di ñëw ëllëg bénéfice loolu moo tax làmb garaaw mbër bi day day dem rek ku mënatul bàyyi keneen ñëw keneen ñëw te affaire bi dafa waroon nekk benn genre structure boo xam ni dañ ko structuré mu nekk mu légal mu doon loo xam ni dafay am ay poursuivi mais loolu loolu def ci joué tey. donc après si laa dem Mbour mu nekk sama deuxième sortie Mbour. ma mm. perte fa combat bi. ok waaw booy xool sama combat yi ma daanu yëpp tëdd yëpp foofu laa ko perte mu metti ma topp. kon daal ñaari defar nga ma xam ne ma xam ne sport la quoi. ok am na solo Bombardier doon nga ko laaj Bombardier bi nga koy laaj fan nga ko tegoon est-ce que mënoon ngaa daan Bombardier Bombardier sud la ëppul. jamono boobu barke alxuraan jamono boobu avant accident bi. Hmm. dama gëmoon ni làmb ji maa ci mën maa ci ëpp doole. gëm-gëm la woon je pesais deux cent kilos oyof moom suma bopp ñeme contact ñeme weñ demoon ba benn instant mu commencé nand système làmb boobu temps erreur bi ma def mooy dama waroon bàyyi moto yi moto yi laa waroon bàyyi mais boobu temps sama bët du sax bombardier waaw fuuf fuuf waaye boobu temps je pesais deux kilos am doole laa wax di yëkkati ay quatre cent kilos te naanuma dara naanuma doom naanuma dara. loolu laa gëmoon combat combat Yékini combat Yékini Baboy la ñëw nga ne ko doo fi tuuse. waaw. nga tax nga taxaw ci kanamam. un million personne wël ma di buuxante seen i yàgg yooyu ma ne yéen pousse leen fii ngeen man kii moom a tax a jóg ponkal bii laa bëgg a jàkkaarloo. lan nga gisoon ci moom ba bëggoon jàkkaarloo ak mais lamb yow lamb mbër lamb moom mën amul ba may bëre Essa Diom Tapha Tine Aziz Ndiaye daa bëggoon ñu bëre jonn ne ko bul bëre kii ponkal bu soxor la ba ma daanee Bazoka du Bazoka dafa daan dafa dafa daan te Tapha moo daan bombardier lamb ji amul mën ay maas la ak ku ne sa wërsëg ak ku ne nga jaar yoon bu neex ak yoon bu baax. Mm-hmm. bu jamono boobu jamono boobu jamono boobu Bazoka laa daan Bazoka moo daan Tafatine te Tafatine moo daan Bombardier. waaw. lamba amul loolu Eumeu Sène bii nga xam ni moo daanoon Balla Gaye Eumeu Sène bëri naa 45 minutes mënul daan Eumeu Sène mënul daan Simel Simel ñaari coup laa ko wecc mu tëdd gëm lamba sens la rek kenn mënul kenn da ngay lamba daj tey suba doo làmb peut-être bi am mooy gëmuma li ñu gëm du ma daaw ma njabar daaw ma dem ci sëriñ moto yi dama ko wanoon bàyyi depuis ba ma ci amee tur. waroon naa nekk professionnel xaw a gëm làmb ay moto moto yi laa waroon bàyyi. mais combat ay bakala hmm. yu mujj yooyu foo koy bëri boobu fekk na sama tànk yi yàqu ba pare mais jamono bi may tëkku hmm. bombardier Lamine. ak Ketchup promo Ketchup ne ko su bëggee promotion nga dem ci Balla Gaye quoi mu mu may ma jàmm Ketchup. ok ok yow Yékini Yékini mi eh yaa yaa Yékini Yékini bi ngay gis nii. ñoo bokkoon boxeur jo billahi moo wax jo na ma bàyyi mu ne ko kii ponkal la mën na xeex mën na bëre bàyyi ko lamb daa tële ji xoolee ba ñu bokkee boxeur laa wax daa wax jo na ma bàyyi billahi waaw Yékini moo dox sa digganteeg jo père jo xam naa ko man jo moo ma yar jo moo ma yar jo xam nga ni moo yar maa nga pendant vingt ans ah man jo mais mais man jo papa la ci man papa papa ndeysaan daf ma yar kon ni ma nekkee xale bu ndaw. waaw dama dama. dama màgg ci kanamam. moo préparé moo la bi mu waaj bi mu bëri Balla Gaye moo préparé Gris de. ah. ndeysaan ak Serigne Ndiaye dafa bi passé. dafa baax dafa baax jo dafa sérieux baax nit ku baax la. man maa ngi préparé Auguste moom. bi nga daan simal fay yow kon gëmoon nga ni. nga daan simal fay pare yow kon gëm nga ni mën ngaa daan ëmb seen mën ngaa daan yëkkati mën ngaa daan bombardier. mais boobu ay quatre cent kilos laay yenu baal bi di lemu borom saal bi xool ma Aziz Ndiaye moo may jël seede ñëw ba ci man ne ma eh yàq samay web machine yi ndaw yi damay vidé machine yi moom taxul sax may wax machine yi damay vidé ay cinquante kilos yooyu da ngay jël di biceps di mel ni ku yor fowukaay. Hmm. dama woon doole. xoolal dama doon sol fii Gris Bordeaux sol fii ta euh, Forza euh, ndem si MC ne ci ginnaaw Tafa Gueye ne leen buux leen ma ma teg benn tànk kenn du buux. dama doole. am doole dof. Mm-hmm. moo. yow tamit yow da yaakaar lan moo tax lan moo tax gars yi doon xëccoog man. ay Gris Bordeaux di xëccu fii Balla Gaye di xëccu fii Tafa Gueye di xëccu fii ku ne bëgg a ànd ak man ah Lamine tamit Lamine nekkuma ay foto du may caaxaan de. ponkal bu am njëriñ laa day ponkal da am njëriñ. wala nga ñàkk jëriñ man sparring partenaire rek mbër li ma la mën a ku la ko mën jëriñ partenaire bu ma ñàkk da nga may jooy. ok ok am na solo naar bi ngay nekk foofu nga nekkoon fa temps bi ngay wax ni boobu nga nekkoon Fass nekkoon fa ñoom Forza Papa Sow. Balla Forza ak ñeneen ak ñeneen. waaw waaw ñooñu ñëpp gis ñooñu ñëpp gisatuñu leen écurie Fass. booy naar pause na bàyyi na ba xaw ma pause na. bàyyil di wax waxu bàyyi bàyyi ba lamb ji kenn moomu ko. Gaston ngi nii ñëwaat su ma neexee ni ñëwaat. lamb ji kenn moomu Baboy Baboy dem na fi immigré ñëw daan Bombardier bëreeg ay Yékini lamb dafa tëre di. yàlla moo yor lépp. yàlla moo xam ni ko. man yaa ngi jàmbaar écurie Simba Jut écurie Simba Jut ak jàmbaar. yow demoon nga Simba Jut bàtt naa. ak Fass bu waaw Fass sama sama problème ñoom li ko indi mooy euh, yaa may dégg. Mm-hmm. sama problème ak Fass li ko indi mooy benn instant waa Fass dañu doon sóoraale trop que Balla Gaye dina bëri ak Gris Bordeaux. dama doon dégg tout temps ñu koy wax. Mm-hmm. après ñu ngemb Mbaye Diouf ba juuf Diouf bi Balla Gaye di coow loolu. ñoom mm-hmm. dañ xamoon ni Balla Gaye suma xarit dañ doon gis tout le temps may woo. parfois day bëgg ni ma seet si ba sama yaay gaañoo presque fa la nekk. léegi ba Balla Gaye di def caravane de la paix en Casamance ba muy bëreeg Tyson. Cobra ngi nii nag li nga waxoon si dana ci ñëw moom dana ci andi ay leeral. Cobra yow bàyyil ma Cobra waay ko buy ma bàyyi bu ma jax ko Cobra yaayam sama mbë yaayam sama fans la bàyyil ma Cobra ah ban Cobra doo ma wax waxu waxoo ma ay rëg-rëg xale yooyu am doole nga ma wax ay Cobra man su may bëree damay bëree ñu am palmarès ñu am doole. Lamine man star laa ci làmb xool ma su may bëreel damay man ay champion d'Afrique laay bëreel déglu ma man sama palmarès benn booy bu nooy moo ci am muy Cobra. Eh. non dama lay wax rek ñi ci des ñëpp c'est des champions ne ko man grand da dem xooli feneen ne ko bëreew maag moom. ne ko bëreew maag moom. Eh, ne ko bëreew maag moom. ñemewul ah. lu mekk buñ bëree buñ jàpp xoolee buñ jàppante. su ma ko dóoree mu jébbalu barke alxuraan bokkuñu su ma ko dóoraatee day jébbalu man sama palmarès ku nooy du ci bokk man ay champion ñoo bokk sama palmarès ay man ñu am tuut boo may wax da nga may wax ñu lëg-lëg yooyu ay maa ñaa xale yooyu nga xam dañoo caas man du ma bëre coomo de dama wax ne Lamine man du ma bëre coomo waaw rek rek kii coxoyo bay même ba may bëreeg moom wax bi daa bëri woon sëñ Modou ñaa neexal ma neexal ma ba ma d'accord dama bëreeg moom mais ba may bëreeg moom xam naa du làmb. waaw ah, maa ngi loo ci wax. rek rek xale la war na war na mën a prouvé xale la. ñeme ñeme nga ko. bàyyi di ma waxu ñeme yow may foto waaw Lamine yow da may fonto wala yi ngay jaan nga ma bëgg a wax. waaw rek rek laa yow may fonto quoi. non da nga may photo ku bëreeg ay ci bombardier bëreeg ay semence bëreeg ay kàddu gi bëreeg ay ogis bëreeg nga may wax ay waxu ay rëg-rëg arrêtel toi aussi lu tax may bañ a la moo tax may may ci rëg-rëg léegi loo ci wax combat boobu non da lu tax dafa def dafa defagum lu ma def ci làmb ba ma koy maytu def na quinze combat de amagul defet waaye wuy ma oh, loo ma waxee man man palmarès laa lay wax pour être champion il faut lutter avec un champion tu peux avoir vingt combats mais ñi nga bëreel bu ñu leen xamulee sa ton ton palmarès kenn du ko compter pour être champion il faut battre un champion non da nga may déglu. Ah. Reug Reug je le respecte un boy boo xam ni am nañ ci moom yaakaar man dama ñàkk ci ñaan. Mm-hmm. tey boo doon lim ñaari mbër mu daan yu am tur boo ci génnee Elton ak Gris 2 ñi si des tànn na rek dama lay wax làmb quoi dama lay wax sport non dama lay wax dama lay wax làmb quoi buñ buñ artee kaf. c'est un grand champion. daan na waaye xoolal gis nga bu xoolal bul bëgguma détail quoi xoolal Lamine man soo soo waxtaan dama xam nga boo gisee su invité du gaaw a ñëw man damay bëgg a waxtaan. ñu waxtaan ak xam-xam bëgguma détail man xoolal bëgguma bëgguma détail. man ba xuwaan ñëwee di jaaxal gars yi man lañ indi ba France pour ma régler problème bi. waaw Alioune Sarr boo yàq combat boobu. kon mm. boo may wax bul ma bul ma nee naa maa ngi am sax ay combat yu man a fàtte wax ay xuwaan yooyu yëpp waroon sama palmarès mënuñu ko lim fii duñu pare. waaye nag sa combat ak Reug Reug bu promoteur tamit man damaa topp làmb. su promoteur ne kar booy naar loolu ci moo koy dama ko naan li ma ko daan wax rek dama nga wax ak mbër ba pare soo paree nga dem joxal ma boo paree nga dem joxal ma sama waa kër xaalis bi man combat musul yàqoo ci man Lamine. kon Reug Reug sport la c'est de l'espoir xoolal fii c'est de l'espoir xoolal ama yéen da ngeen bëgg ay diw daan na la. diw daanu la fii sport la. Mike Tyson le vrai Mike Tyson il perd c' est de l' sport da ngay daan tey suba ñu daan la tey on est des combattants. ku bañ ñu dóor la buy dem ci làmb. ku bañ ñu daan la bul football c' est de l' sport. c' est c' est c' juste sport su nekk da ngay def sa temps ñu ne ñëw. Reug Reug c' est un grand champion. je mm. respecte bëgg naa mu toj làmb ñoom ñëpp. léegi yow lu tax nga may lu tax nga ay ay ñeme nga jël kii ñeme nga jël kee. <laughs> man damaa ku ma war bañ ci laam. di peese ay deux cent kilos. man bu duma ñëw xoolal bu duma ñëw ci làmb mbër tëkku ma. waa léegi dégg mbër yii musuma musuma ñëw ci làmb mu combat yi ma mujj jël yëpp par exception la xoolal ba may bëreeg paka la xaalis la ba may bëreeg Jordan yooyu yëpp ay xaalis la boobu temps daañu naa je peux plus mënuma sax daan yaawu jaal. Hmm. mais ba ma ci toll la wax du ma taamu mbër. ok lamb ji kenn moomu. Cobra daal mi ngi bind rek. bàyyil ma Cobra Cobra nii lay def da lay topp topp diw bëre bëre bëre boo ñëwee mu néewtoo xool fu muy tëdd bàyyil ma Cobra bi waaye. dama lay wax Cobra. ok léegi dinañ ci dinañ ci ñëw. bii laa ko faral bii laa ko faral contre Juan wala bii laa ko faral contre Juan la. <laughs> Juan laal ko <laughs> léegi ne ko moom su bëggee ñu bëre mi ngi France maa ngi France xam na fi muy jaar pour am sama numéro.